cat ak ngërëm ñeen na leen yéen ñuy seetaan suñu plateforme de syndicalisme TV nees gis ñu dikk ak ci xibaar yi li ci gën a bokk na ci mbirum Idrissa Gana Gueye di footballeur sénégalais boobee nga xamante daanaka coowal affaire góor jigéen gannaaw mayo bu nga xamante ni da ko bañoon a sol loolee nag pënd ba wuréegul ndax ku nekk yaa ngi cay addu bi la yoon kii di Djibril War moo ko dal di yëkkati ci assemblée générale bu association des juristes nag gannaaw bi nga xamante ni ñoo ngi koy amal député panafricain boobee nag sénégalais di maître Djibril War naka dal wax ci mbirum Idrissa Gana Gueye ci assemblée générale juriste mi nga xamante ni si amal ca week-end bi Turquie thème bi violation des droits de l'homme dans le monde islamique gannaaw ba ñu ko ci association doon traité qu'il juge désobligeant maanaam rek ab ñàkkub teggin waaye itam ay saaga ki menace yoo xamante dal na ci kaw footballeur sénégalais boobee moom nag xamle nag mbir moomee nag daanaka yoon da ko ko may mu dal di koy def waaye nag wartoor a tax rek ñu am benn po melokaan ak xoolin woo xamante ni ñu ngi koy addu jëmale ci boobule football si lañ ko doon bëgg a defloo rek moo di sol mayo boo xamante dafa am couleur LGBT di wàlluma ngóor jigéen loolu naka doon na li nga xamante ni ni si moo di Alioune Ndoye mooy jawriñ bi yor lépp lu jëm ci wàllum napp gi moom nag xam la ne nekk amul benn bateau union européenne boo xamante ni moo ngi ci waaxu sénégalais yi booba ak léegi nag def na weer moom xam leen nag moom loolu gars yi di ruuma euh, tubaab bi ñu ngi si géej gi loolee moom weddi ndax boo xamante ni yaa ngi si di napp wala itam di def naka sudut noonu loolee nag moom joori bi dal dina koy wedd ba mu set wecc mbirum kañu njortoon ne moo ko dal dee faat di xaasim ba nga xamante ni moom la doon liggéeyandoo ci multi service boobee nag mujjee naa wax nekk ne moom moo def mbiru mel ndax dafa jàppoon ne rek moom borom këram nag wala sax soxnaam moo ko doon teg pression ngir rek mu amal ay koppar yoo xamante ni si war na ko mun a am ngir rek dal diggante doom ak taawam boobee gannaaw seen acte la dem daal def jëf ju ñaaw joojee bu daal faat li nga si moo soxna soosee mu nekk nag si jamono ji ci loxol yoon ñuy càmbar ay mbiram mu nekk nag loo xamante ni daanaka ñëpp a ko méttit lu gannaaw ba mu fàtti ki ne gay moomee doon daane dooleem euh, foofee ca Pikine ci benn euh, multi service keneen koo xamante ni itam nee na ñàkk na bakkanam foofee ca wakaam ak ca jàmm mu di ñetti doomi aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seenu bakkan ci ñetti fan fii ci yi daanaka Sénégal yëpp nag ñoo ngi koy naqarlu waaye itam di sàkku rek yoon wala sax ñi nga xamante ñor kaaraange ñu mën a def seen liggéey bu aar askan wi ak samba boo yilee ndax si jamono ji nag bu ñu tëddee duñu a ñu nekk dal di leen fàtte loole nag mun a doon loo xamante war mun a ñàkk mu di jafe-jafe boo xamante ëlëm na lool ci xelu askan wi wax ci mbirum gaz Sénégal nag Macky mi chef de l'état président de la république moom nag xamante ni si fii ak 2030 lañ ko war a amal mu nekk nag xibaar boo xamante ni ko démb ko dal amal gannaaw nag bi muy dalal conseiller allemand boobee nag jóge woon ca allemand mu dal koy dalal ci la ne nag Sénégal bëgg na rek amal ab exportation bu bari boo xamante ni si dana ko ci a fournir ñeneen ñi ñi nekk ci bitim réew ci wàllum gaz Macky président de la république xemem teefam moo ko dal di wax beneen drame mu am foofee nag ca diwaanu Touba benn waay woo daanaka fañ loolee dem na sax bay yàqu moom la ñu fal dee fekk mu ñàkk bakkanam naka ci la ñu woo ñi nga xamante ni moo di sapeur pompier ngir ñu jël si ko mu nekk nag keneen koo xamante ni si ñàkk na bakkanam ci anam yu doy waar lu ñu mel naka moo tax police dal dee ubbi ab lankeet ngir jéem a leeral kooke ana lan moo ko faat ci anam yu day waar yooyu foofee ca diwaanu Touba. mbokk yi dañu leen di jaajëfal ci kóolute bi ngeen ànd ñun saa su ne naka di fi taataan ay xibaar lii dañu amoon yéen a yeggee ci xibaar li leen dig daje ëllëg ci beneen boobu ñu bàyyi leen